Aliou Cissé gisuma lu ñu ko war a mën a reprocher parce que ku nekkul naa fekk bi nga accepté que ni joueurs yi joué nañ première mi-temps bi. su may wax man ci coach bi laay wax quoi changement boo def changement nga def changement yu utile. Bamba Dieng waruñu ko woon dugal. du dugal ay Nicolas Jackson ooy dañu am expérience. mu jéem a renforcer waat rek. am na yow joueurs yoo xamante ne ñun xamuñu leen dañ leen dugal ci terrain bi. Sénégal Sénégal moo gagné Sénégal moo gagné loolu ba kañ. rajo lu manque tellement il faut qu'il revienne il faut que Dieu c'est un miracle franchement mais nag ñëw ba ci dernier moment dañu këpp suñu yelwaan c'est pas normal muy dugal certains Bamba yoo xam si toog nañ plus de ay beaucoup de matchs yoo xam si compétition alors Libaas comme ni nga ko gisee tey nag ñu ngi fii ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru ku leen xam nag xam leen ci fan zone ñoom dañuy supporter muy neex ak muy naqari gis nañ fi nag ñi nga xamante ne nii ñoo di supporters yi ñu def seen i vert jaune rouge étoile digg bi mu solo lool ci euh, ay supporters rawatina ci sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk foofu ca Qatar Libaas euh, dañuy daal di jël réaction sénégalais yi ñi nga xamante ne nii fekk nañu leen fi gis nañ ñoo xam ne seen xol jeex na ci match bi gis nañ ñoo xam ne itam. am nañ yaakaar ci yeneen match yi di ñëw lu ci mënti am rek li baas euh, seen réaction mooy gën a compter donc dañu leen di tàllal suñu micro rek xool euh, lan mooy doon seen xalaat ak lan la ñu bëgg coach bi soppil leen ko ci match yi ñëw naka nga gisee tey match. waaw am nañu contentement premier mi-temps bi parce que gis nañu ay gaynde njaay yu taxaw temm na ñoom duñu leen humilier kenn du leen toroxal ils se sont bien défendus en tout cas pour le premier mi-temps mais après nag bon. xam naa ak coono gi parce que c'est des ak yenn changement yi jot a am ñenn ñu blessé te waruñu leen woon changer le le coach a été obligé de les remplacer en tout cas loolu tamit euh, pratiquement amuñu am nañ deux à trois changements ci ci ci diir bu gàtt xëy na loolu aussi euh, am lu bëri lu mu pénaliser ci. ci Sadio Mané manqué na Sénégal. waaw loolu ñëpp xamoon nañ ko. ñëpp xamoon nañ ko mais gisoon nañu nag premier mi-temps gis nañu ay joueurs yoo xamante ne il se battait pour pour l' équipe nationale il se battait pour Sadio maane donc loolu am nañu yaakaar nag ba léegi certes am nañu déception sénégalais yëpp suñu sañoon tey ñëpp nekk di yuuxu di fecc di di di ambiance mais malheureusement mënuñu def loolu. mais quoi qu'il en soit ñun am nañu on est en tout cas on est optimiste gëm nañ ni Équateur euh, Qatar bi organisé suñ ko jàppee yal nañ ko njëkk am d'ailleurs dinañ ko dóor loolu confiance la ñuy joxaat suñu amee Équateur ñu ñu làbbali ko donc parce que ñaari équipe favori yi ñoo doon joué donc ce qui veut dire ñoom ñaar ñi am bon probablement mën nañu génn ci poule bi jusque là le Sénégal reste parmi les équipes euh, favoris waa Aberdeen techniquement lan nga si lan xaar Aliou Cissé pour prochain bon Aliou Cissé gisuma luñ ko war a mën a reprocher parce que ku nekkul naa fekk di nga accepter que ni joueurs yi joué nañ première mi-temps bi ñëpp kenn ko mer première mi-temps bi mais xëy na nag am na lu lu ñëw bees ci deuxième mi-temps bi ñoom ay remplaçant am ñu blessé loolu mënu ci dara ndogalu yàlla la. su may wax man ci coach bi laay wax quoi parce que changement boo def changement nga def changement yu utile euh, pourquoi pas pourquoi pas Iliman lan la lan la pourquoi moom mënut a may a may Iliman Ndiaye temps de jeu compétirul Bamba Dieng ñun tane ñun ñu ngi entraîné chaque jour ñu ngi fubal Bamba Dieng fubalul ngir yàlla nañ ñu noppal waaw lu nekk nag non Pape Matar Sarr Pape Matar saar mën nañu xaar ma mën nañ ci génn ah mën nañ ci génn mais nag match bii nii c'est un match clé bi nga xamante ni défaite waru ci woon a am surtout fi ñu encaissé bii bi premier temps moo gënoon a métti géré nañ ko yaa ngi dégg fi ñu encaissé bi 83e minute équipe bu ko encaissé nañ wax ak coach ba 83e minute. équipe bu baax waru ko encaissé mais nag yàlla baax na li ci des euh, des nañu deux matchs incha allah yàlla nañ ko yàlla may ko. yow yaa ngi jooy de. billaay maa ngi gis. lan moo la naqari daa fiis lu Sadio ñëwul léegi moo métti. Mm. tey li Sadio doon def tey gisoo kenn ku ko fi def. billaay sérieusement il nous a beaucoup manqué Ismaïla nekk fi topp terrain bi di daw dañu tullil li yooyu rek. El Hadj Sarr euh, teewalu fi Sadio Mané. Billaay teewlu ko fi joué na moom il a bien joué mais Sadio nous manque tellement il faut qu'il revienne il faut que Dieu fait un miracle quand même. bi ñun ñëpp ñoo ko gisandoo on a bien joué vraiment on a bien débuté première mi-temps bi géré nañ ko ñëw ba si deuxième mi-temps bi gis nañ ni manque d'expérience moo ñu xaw a moo ñu xañ match bi parce que dernièrement lañ exploité failles yi te te seen gars yi sonn ak un peu euh, euh, erreur bi un mais vraiment on a bien joué j'espère que ñu dem ba chercher qualification ci deux jours du match incha allah. lan nga gis ne war nañ ko mën changer si suñu prochain match. bon changement yi changement yi parce que euh, coupe euh, rythme yi nii euh, coupé noonu Aliou Cissé je je pense que Aliou Cissé xaw naa def heureux changement parce que à la place de je vois que à la place Jackson boo xoolee Jackson Jackson Jackson ak Bamba Dieng ñoo bokk même profil ñoom ay ay ay kii ay avant centre lan mais à la place de Jackson. Euh, dafa waroon def Iliman Ndiaye parce que moom mooy excentré bi loolu laa gis ni moom foofu la xaw a defee erreur mais dans l'ensemble on a bien joué parce que ñee dañoo gën a nekk expérience rek dañoo gën a nekk expérience ñun. match tey bi c'était bien parti franchement mais nag ñëw ba ci dernier moment rek ñu këpp suñu yelwaan dama naroon sax yooyu tellement parce que sama xol bi dafa jeex. billaahi. kan nga ñëwoon supporter. dama ñëwoon xool ñoom Ismaïla Sarr ñoom Boulaye Dia ñoom Nampalis xool yooyu noonu parce que tey Sadio ñëw fi franchement parlant nag ressentir nañ manque bi parce que ci temps yi moom moo fa mën bu dëgg yàlla. alors ngeen di xaar ci Aliou Cissé pour seen prochain match. Aliou Cissé mu amélioré joueurs surtout si kaw parce que Krépin dafa doon wéet tellement ci kaw dafa doon wéet tout temps mu amélioré si kaw daal bu baax parce que défense bi moo ñuy tax défaite ndax moom logique bi mu doon wax da ko suivre route ndax dañu ne au début c'est-à-dire yi compétir ñoom il est préféré mu teg nga xam ñooy compétir kon donc pourquoi mu teg Bamba ci biir terrain bi am na yeneen attaquants yoo xam puisque bii lañ soxla woon dem ba 83e minute on nous a mené donc c'est pas normal muy dugal certains Bamba yoo xam si toog nañ plus de ay beaucoup de matchs yoo xam si compétir donc yaakaar naa ni c'était là où le bas blesse beneen euh, na ko bi toll nañ benn moment boo xam dañoo soxla woon ñoo xam si peut-être ay milieu milieu ñoo xam dañuy téye bi pour ñu mën a euh, gagner euh, en avance léegi pourquoi kon donc bi bi ñu demee ba euh, Cheikh Kouyaté blessé mu indi ku mel ni Pape Matar Sarr moo fi aussi koo xam si peut-être mën nañ mën nañoo aider sur le plan sur le plan offensif moom day téye bal mën na passe aussi donc jàppar naa ni ñaari erreurs yooyu laa mënoon a souligner yi nga xam si def na ko. en attaque on est un faible quoi donc c'est normal. ñu sécuriser suñu milieu de terrain comment sécuriser le milieu de terrain man j'aurais aimé tey ñu teg ñaari six euh, comme comme euh, pas de six par exemple c'est un milieu de terrain euh, plus plus un six donc mettre pas de six et Nampalys Mendy serait beaucoup plus adéquat ensuite mettre un Krépin Diatta qui qui va jouer le rôle de dans ce cas il aura la liberté donc de jouer le rôle de dix nous faire amener Krépin Diatta comment dirais-je Ismaël Sarr et l'autre euh, Ilman Ndiaye et pourquoi pas Boulay Dia pour, qu'on puisse sécuriser le milieu de terrain quoi parce qu'on sait que l'attaque est un peu faible parce qu'il y a, a l'absence donc pour, pour bon match il fallait sécuriser le milieu de terrain et comment sécuriser ça mettre un deux, deux, deux, et, et, laisser Crépé Diata faire le, faire, faire, faire libre dans le milieu de terrain quoi mais franchement c'était ça que je ah, pour l'instant de man si li ma na certes y a quelques changements am na joueurs yoo xamante ne ñun xamuñu leen dañ leen dugal ci terrain bi ah, ce qu'on attend de de gisuñu Bamba Dieng moom man gisuma moom benn critique ah, man daal kii l'autre là Jacob bu waxoon kay ah, je m'attendais à ce qu'il fasse plus quoi mais bañ ñëwee gis na xëy na tamit comme premier match am la comme premier mondial bi tamit c'est pas facile de jouer une coupe du monde aussi. match bi pourtant joué nañ de yàlla buy defar on sait jamais match de poule la te des na yeneen match yàlla baax na. ah bien sûr. tey man rek mais défenseur yi tamit lii nañ de. def nañ li wax ah. mu jéem mu jéem a renforcer waat rek genre mu xool attaque bi rek parce que défense daf mu baax na moom macha allah attaque bi moo ci des ak milieu bi tuuti rek. Sénégal Sénégal moo gën Sénégal loolu ba kañ. affaire bi des a calme la du yàkkamte nanka nanka dañuy gagné li du dara lii moom du dara moom. loolu am nga yaakaar ci match yi di ñëw. non match yi di ñëw moom loolu dañuy gagné loolu jarul wax moom loolu moom dañuy gagné moom. dañoo fubal match bi yëpp match bi yëpp lañ fubal yaa ma gën a xam à la fin gars yi ñëw defal di changement kenn xamul changement bi lu mu demee pourquoi pas du dugal suñu attaquant Aziz Ali Ndiaye. erreur bi fan. ah bi si attaquant la Bamba Dieng waruñu ko woon dugal c'est que mënoon a dugg sax mais waruñu ko woon dugal ki leen ñu waroon dugal. dafa mel ni pa kii di Sadio Mané manqué na leen. franchement Sadio Mané ma dafa marqué franchement dafa marqué comme Boulaye Dia occasion yi mu doon raté Sadio bu fa nekkoon kenn waxatu ko. mais yaakaar gi ngeen tegoon ci Ismaïla Sarr anam. ah yaakaar ngeen tegoon ci. non Ismaïla Sarr dafa def yàlla moo bind ni ni du dugal rek mais def na grand match moom ak Idrissa Gana Gueye def nañ grand match waaw mais yàlla baax na match yeneen incha allah ñoo ngi ñëw. am nañ espoir quoi am nañ espoir bu baax parce que lu ñu fubal gars yi fubaluñu ko lu ñu fubal gars yi fubaluñu ko fubaluñu ko benn yoon c'est que nag yàlla moo leen may ndam li rek xam nga ñoo ko mën a am. bu dee ba waa PEPA sëppuñu sëppuñu mooy teebal calme calme jeu bi billaay calme jeu bi mais jékki-jékki rek waaw génnee ko du dugal ay Nicolas Jackson boobu yooyu dañu ay Bamba Dieng bu laay jàpp mu ngi doon def mas bu laay mu ngi doon def mas mu ngi woon ci mas bi ku yàq match bi il faut qu'on dise sur telle question ay occasion Bamba Dieng la dugal te Bamba Dieng gi nga bi mu duggee commencé na dem si la dem song waa ji jox euh, nu mu tuddati euh, Gana Gueye mu dóor góor bi euh, repoussé ko bon gannaaw boobu keneen ki Pape Gueye la dugal Pape Gueye gi nga occasion bi mu raté donc pour man changement yi amul problème ah. waaw tey man gisuma seen yeneen match yi nga xam ne ñooy ñu xam ne dañ ko war a gagné rek gagné rek qualifié jeex na fi mu ne nii. suñu sort dépendre si kenn mooy suñu qualification si suñuy tànk la dépendre te am naa yaakaar am nañu équipe boo xam ne am na kàttanu war a mën a jàll parce que am naa yaakaar ne suñu équipe si kàttanu suñu borom moo mën Qatar Équateur nag bu boobaa day nekk rek genre xare ba badar rek.